laqil lisaani waxlulan min xulum xad wacalhu dakiran wa shakiran abad wajal kalaami rashidan wa murshida wa fikrati nawir wa qalbi arshida anta allasi allamta luqmaan alxikam fa bil mustafa xayra sham asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki daara ja waa bi ñëpp ñoo ngi leen di nuyu di leen di beral nu yoog siyaar waa daara xikmatul yawmi numéro 1 2 3 ak jëpp daara joo xam ne xikma bi mi ngi fay tabbi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 jullit bi ëllëg la woon ci la gënoon a jëm am na bi sëriñ bu mag bi woote ci njaareem ba ñu bari wuy ko mu xaaj mbooloo ma ñeenti xaaj benn xaaj mu ne leen féete leen ma penku benn xaaj bi féete ko sow bi ci des féete ko ndeyjoor xaaj bi ci des féete ko càmmooñ mu toog ci digg ba dal ne yéen waa penku ndax xam ngeen lenn lu mën a fajub xiif ñu ne ko ñu de mbàkki xamuñu lenn lu mën a fajub xiif lu dul lekk mu ne yéen waaw soow ndax xam ngeen lenn lu mën a fajub xiif ñu ne ko ñun de Mbàkke xamuñu lenn lu mën a fajub xiif lu dul lekk mu laaj ko waa ndeyjoor ñu wax loolu mu laaj waa càmmooñ ñu wax loolu mu ne yéen waa penku ngeen xamu leen lenn lu mën a fajub xiif lu dul lekk ñu ne ko déedéet mu laaj waa sow ñu wax loola mu laaj waa ndeyjoor ak waa càmmooñ ñu wax loola mu ne man ahmadu mii de xawma lenn lu mën a fajub xiif lu dul lekk waaye nit nga xam ne nag xamuñu lenn lu mën a fajub xiif lu dul lekk naka noonu itam amut lenn lu mën a faj mbëggalum bàmmeel lu dul jaamu yàlla ne leen man de yàlla dénk na ma mbalaanum sutura moo xam ne ni ku nekk ci àdduna mën nga cee sàngo waaye mbalaanum bàmmeel ku ne yaa koy ràbbal sa bopp te loolu de moom da koo giñ ndax bu waxoon te giñut it ñu gëm waaye dafa giñ ne giñ naa ci yàlla ne amul lenn luy jariñ jaam bi ëllëg bu wàccee ci bàmmeelam lu dul ak njub tallaahi laysa yanfau shaxsu gadaa indahu loolu ramsihi xayrul hudaa daal di waxit ne àdduna ak àllaaxira dañoo wuute lool ndax àdduna koo bëgg gis mën nga ko gis waaye àllaaxira njaraan bokk lu ñuy def rek ñooy gisante démb nag andi woon nañ lenn ci bayiti sëriñ Bay Jaxate tey ñu barkeelu ci bayiti sëriñ Musaa Ka yuy fàttalee ëllëg téeram bam tuddee naa jéem a buurati fàttali dee ak fàttali ëllëg rek moo ko tax a jóg lam ca wax ci yonante ya ak boroom cër yu njëkk ya ak buur ya fañ jaaroon ak fa àdduna mujj ak ñoom téere bu rëy la waaye dañ ci barkeelu rek ñu tàmbalee ko ca lam wax ne yónneen ya ak ñañu leen daa yónni ñépp a ne mes loo ruq-ruq barab day ñëw fa bis di la wër ndegam ña daa dox ci kaw ndox meeka dem asamaaw di xëy di dox looy garab ndeem ñoom la suuf mujj war ndegam ña daa yokki dik kuy bëgg a faatu ñu faj ñoo xëy ne mes lu ñu fi def waaru jot na bu wér ndegam ña daa fettalanteeg noonu yàlla ak yi daa defi kàngam ñëpp ñëpp nga wor ak yi dee fa jógal ñuy faj ku ràgg ku ne ba woppi dee ja ñëwee moo tee ñu farlu ba wér ndegam borom mbir yu toll nii ñëpp ñëpp a ne mes waajal te jóg sàkku ab yóbbal te jëf li la war lii doy na koy wax a wax lii doy na koy xam a xam ndem xejj yàlla yi ñoo dee man mi seen duma der loo xejj xejj du tee dee ñëw fa bis di la wër te loo ko jag te loo ko berndeel loo xejj xejj du dee dee def sa gën di te loo ko berneel lu dul sagaru du génn sa kër loo xeej xeej du tee dee def sa gan di la wër te loo ko berndeel lu dul sagaru du génn sa kër bu dig ba jeexee ba ruugay wuy ji yàlla keroog mooy gën a métti juróom-ñaar fukki ràbb yu sar bis buñ la dee jangte-jangte yóbbu suuli ba ñëw ba jooyee daal ñuy xëccoo alal ja ak la jur xarit ya fàtte la say doom dal di doon ni alal jigéen ñi tenj la sàkket yépp xëy na wesar yeneen ti weer ca kanam ak lëf sa bokk yu ñëw garoo jabar ya te dootoo denc faw jabar sa doomi ndaw yi jirim yu mag ya fopp sa barab jigéen ñu ndaw ña di waaj tey seetu tey wuti far nga weete weet ne cundum yow rek loo jëfuloon dootoo ko am sa alal ji yóbbuloo ko fa far loo yóbbuloo boo demee lu jëf ji yiw du fa saf mu nakkarun wan wana kiirun ñooy taxaw di la xar seen bolde yaa gën a rëy ngir doomi aadama yi ak jinne yi bu ñu booloo woon yëngal ko du wér boo tontuwul lañu lay wax bol dal ci sa kaw bàmmeel ba naj la ba jiit yaag jaan ya far na jasar bàmmeel ba xat ga mu xat ak tër ba jëm abada yaram wa ak lañ ci muuroon lépp def saxi wer lëndam ga ak sax ya ak wéetaay wu yàgg wa ak mbugale ak tiis yi jëm yowmal xiyaamati far nga sax ca loolee ba bis buñ dekkalee ba taxaw bay joxe téere ya mbaa ñuy peese jëf ya di ber kon mbokk nañuy bàyyi xel wax yii nga xam ne nii bu ñu demee ci alquran fekk ko fa bu ñu demee ci sunna si yonent bi fekk ko fa bu ñu ci njàngaleem Sëriñ Tuubaa fekk ko fa waaye bu ñu demee ci mbindum mag ñi Sëriñ Tuubaa yaroon it fekk mu fees dell ci seeni bind te ñoom ñi ñu ko doon fàttali ñoom ñëpp war nañ ñoo jox misaal ndax kenn nekkatu fi kon nañu bàyyi xel bu baax a baax yàlla nañu suñu borom sënk ci siraatal mustaqim ñoo ngi fàttali sunu mbokki jullit yëpp ak mbokki taalibe bi yëpp liggéeyu waa daara Hikmatul Yawmi lépp jëm ci jàng ak jàngale ak yare ak dimbalante ci sunu biir ngir liggéeyalee ko sunu borom ngir fàggu dundub ëllëg ku ci bëgg xam dara wala nga bëgg cee doon dara wala nga bëgg cee def dara nga woote ci 77 633 77 56 wala nga woote ci 77 693 72 55. xikma nag day tënku yaa koy tënki ngir jariñoo ci rajo boobu day sekki moo tax mën a wuy la te wuy balaa jariñ nga toj ko jot ca buy ba baa lay jariñ